bisimilah mina seytaane rajim bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk turam ak santam di leen ñaanal jàmm di ñaan xéewal di ñaan sutura di nuyu caw mi nga xam ne bu ñu koy xam yàlla ak yonente ba ak sëyna bu jànki loxom la jaar sëyna bu tamit bu ñu koy xam ndey jóob moo tax ñoo xam sëyna bu wante lépp rafet na ndax eh, julli gi buy jub si ku la indil pomme de terre ak soble jàppale na la kon yàlla même fay yal na ko yàlla fay li ma bëgg moo ko xam yal na ko suñu borom defal yal na ko yàlla defal lu ko we njortam moom caw ñu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu waa taseet ñëpp di leen ñaanal jàmm ak xéewal yàlla mi am jàmm ci barke Seydina Mohamed barke Serigne Touba barke Serigne Babacar yal na yàlla may ñëpp jàmm yàlla yokk xéewalam li mu bëgg ci xolam nag moo ko xam yàlla na ko ko yàlla defal lii mënu dimbalit yàlla na ko yàlla dimbali ndax ku dimbali jaboot yàlla dimbali la ku dimbali doomu adama yàlla dimbali la yàlla na ko yàlla dimbali te yàlla nañu yàlla may ndam lii mënu defal nag xam nañu ko yëg nañu ko ndax lépp lu ma jox sëy na bu rek sëy na bu indil nañu ko di làmbaat ci posetam di ci dolli dañu ko jox kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal xéewal di ko ñaanal gudd fan di ko sax dàkk ba lépp lu mu bëgg ci àdduna yàlla na ko suñu borom defal ñun nag bu soobee yàlla suñu borom ñu ci ginnaawam tey ba ëllëg dinañu ko jàppale te ñun duñu dellu ginnaaw duñu war lépp loo xam ne si wax nañ ko dinañu ko def kon yàlla na yàlla fay say na bu dala sant dala gërëm di ñaan bu nagane di wéne nag yàlla na la caw daggal bi màkk nga siyaare ji Seydina Mohamed jëlikaa la ga xale boo am yar nga boo am tiranga nga man de bu may toog di wax barke sëñ yaa tax yàlla na fay la Mamadou Thiaw lépp lu mu fi yónnee rek daan ko fi yónnee gis nañ ko mu jaar ci loxo Seynabou Dieng mu gore mii mu jaar ci loxo Seynabou mu gore mii lépp lu nga xamante ne rek nit mu ngi koy defal nit ci lu baax bu mii mu ngi koy jox bu Seynabou bu di ñu ko jox mu doon loo xam ne nag dañ ko yëg doon lu rëy ci ñun ndaxte jigéen ku ko dimbali dimbali nga askan wi yëpp ndax jigéen ñee ci kër yi ñoo ne ci njaboot gi ñoo ne fépp tubaar fakaar la kon bi mu def lu rëy la lu rëy la ñu nag dañoo mës a ànd ak moom ci ñu jaare ko ci bu Dieng mi te tey jii lañu gën a takku ànd ak moom li yëpp neex na it waaye ñun tam suñu sañoon bëgg nañu ko ñu dimbali ndax ay jigéen lañu te lépp lu nga xam ne nit da da ko yëkkati da la ko may soo sañoon itam nga di ko defal sa bopp di nga noppal sa bopp dinga noppal ka la ko doon jël di la ko may yaa ngi dégg ñun ci développement la ñuy yëngatu moom la ñu bëgg moom la ñu xam waaw suñu sañoon daal dinañ jàppale ci affaire développement cuub yaa ngi fi jàng jardinage a ngi fi et cetera et cetera yu bare nga fi yoo xam ne jigéen mën na cee yëngatu ba bu ëllëgee mu di ci mën a e, defar boppam boo xam ne du dépendre ci kenn waa te wax dëgg yàlla fii am nañ fu mbootaay goo xam ne. presque lu ko manqué téeméer nit bariwul waa ndax am nañ fi mbootaay bu mag bu nga xam ne cinquante personnes lañu avec bi presque kii soixante personnes la kon xam nga loolu macha allah bari na yaa ngi dégg kon te loolu tax suñu takkute rek suñu takkute rek ndax dañuy del suñuy ñaar téeméer suñuy ñetti téeméer suñuy cinq cent francs di ko dajalee di ko leblente ci suñuy biir ku ci def sa intérêt intérêt boobu bu matee dañ lay jox sa xaalis waaw kenn dematul lebete fenn dematuñu ci banque yi dematuñu fenn loolu dañ koy jëf su suñu biir moo ñu indi fii kon suñu sañoon moom itam dinañu jàppale waaw ñu mën a liggéeyal suñu bopp demal suñu bopp mu ñuy jàppale sax gaa ndax lii lu rëy la ak leneen la nga xamante ne ñëwoon na démb ak bërki démb mais suñu sañoon daal ñoo ngi koy ñaan moom euh, monsieur Thiaw mu gën ñoo dimbali ci loo xam ne moom dinañ ci mën a yëngatu di ci saytu ba mën cee defal suñu bopp bala lii bu dewee ne ñu di ko defal suñu bopp sax te moom du ko indi wasalaam loolu rek laa amoon ci lu muy wax seen bu nag ñoo ngi koy gërëm di ko sant ndax lii lépp mooma waaw ndax buñ ko xamee ba ñu defal moom mi mooy intermédiaire bi waaw te yàqu ci dara mu ngi fiy ñëw suba di fi ñëw ngoon di ñu seet waaw lépp lu nga xam ne caw dig dig nañu ko itam ba jox ko teg ko ci loxo seen bu seen bu jox nañ ko yokk ci yëfam réew mi nga ñuy laaj da nga ciy jot na bu fii yaa ko moom xëccoowoo ko kenn ndax yow gor nga nabu luñ la jox andi nga ko yaa caw danoo ñaan yàlla nag loo làmbe ànd ak yéen ba ca pale ba ba bu ñuy génnaat dañuy luyee suñuy kaar jëm si fayu jël ndam li yal na ko yàlla defal ñépp fekke kenn bañ a wuute fii moom yaa ko moom xëccoowoo kenn na na leer loolu caw ñun ciment la nu benn yoon la nuy tooy yal na nu yàlla may gudd fa nag ak wér fekke ni nga lebal gii nga nu lebal lebal nga ko ay gor ñun ciment la nu benn yoon la nuy tooy na ci caw jot fii yéen a ko moom yal na nu yàlla may ndam ci kàttanu borom mbaar mi. di leen sant di leen gërëm dinaa jël parole ndax na boo ko waral mënuma sax wax waaye nabu simplicité lañu woon nabu simple na bu wax ndànk la xam na bu ndox ndànk tiitut boo demee këram da lay recevoir nu mu waree toog waxtaan ak yow ku wax am xew fii ci koñ bi dina ñëw li mu yor mu ndaw tale la ko kon daf ñoo jël boole ñu ci boppam il ñu wax lii du lii sax a tax daana jël xaalisam di ñu ko jox di ñu ko jàppale ne de leen ko dimbalikoo te boobu lii ñëwul kon lii bu ñëwee duñ ne guléet da ko fay fekk moo tax mu defaat ko nii ñun daal li ñu koy ñaanal ñu ngi koy gërëm di ko sant li muy bëgg ci yoon bi nag yàlla na ko yàlla defal ndax fu mu ne kat bu doonee suñu ministre ñun dinañ jël ñun waa fayu ndax gisuñu kenn moom la ñu gis moom rek la ñu gis bu doonu ministre mu doon suñu député loolu daal lañu bëgg yàlla defal ñu ko li mu ci bëgg yàlla defal ko ko loolu daal lañ koy ñaanal vraiment macha allah macha allah wax dëgg yàlla zéro fot zéro faute tiitut tiitut dox ndànk wax ndànk wax dëgg yàlla lool rek lañ ko xamal ku dem këram recevoir la wax dëgg yàlla. asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum nabu ñoo ngi lay tatagal di la dalal jàmm di la ñaan yal na yàlla xàllal. yàlla mi nga xam ne ku mu xalal nga dem yàlla na la yàlla xalal yàlla bu la pakk fel yàlla bool darseeg dara lu la jaaxal kontaan nañu bég nañ ci yow macha allah li ñu gën a kontaan loo mooy sa dal ak sa discipline ak sa yar macha allah ba ñu yàlla wonaleeg yow ba léegi grâce à Ndeye sama doom jee doo lantinoor téyewoo dara Diop parce que boo ko noon rek ma fu mu yem mais lii lépp yow la jóob nabu jërëjëf jaaraama albarka parce que li tax ma wax la ko mënoon nga xeeb ndey mënoon ko jëfantal mais macha allah siggal nga ko sagal nga ko ci biir ay nawleem siggal nga nu sagal nga nu jërëjëf jaaraama albarka yal na la yàlla fay. tey nag fii dama dajale femmes yi pour joxe tuuti soble ak pomme de terre groupement yi ba nga xamee ne. ñu mën ci jàppandiku ci tabaski bi ndax vraiment yàgg naa ñoom depuis ay année ngi nii may liggéey ak ñoom lu ma xew la ñu jóg foofu ma leen wooyu ñu wuy si ma ma yàgg nag di def ay petit financement si ñoom ñu ciy liggéey dégg nga ba joxe deux cent vingt cinq mille francs pour ñu jàpp ci liggéey ci ma joxe ñuy soble ak pomme de terre pour jàppalee ko tabaski bi ndax tey xalaat naa ne njaboot bu nekk dina ko war a soxla loolu lépp nag grâce a mu le maire de taset ma Mamadou Thiaw moom mi nga xamee ne yàgg na ma jàppale ne ma ne bu bul tiit dara bu ragal dara maa sa gannaaw mu may jàppale boobu ba léegi moo tax ma mbootaay bi wan leen ne Mamadou Thiaw moo nekk sama gannaaw moo may jàppale kon nag ma bëgg moom tamit ngeen jàppale ko wax euh, na mbooloo mi yëpp xam ne àdduna bi yëpp xam kan mooy Mamadou caw ndax président xam ne aussi loxo Mamadou Thiaw mi ngi fii biir Thiès Thiès commune mu bàyyi kaset gee ñëw dugg biir Thiès commune pour jàppale jigéen ñi. alors li ni mel toujours ci wàllu massification la pour jox ndam président Macky Sall fan ngeen ci tool waaw ñu ngi massifié rek ndax euh, depuis législative ba léegi bàyyiwuñu ñu ngi liggéey dem ci gox yu nekk ñu ngi som ñu ngi fayu ñu ngi grand standing ñu ngi Medina Fall ñu ngi sama cité bu bees bee cité Sidak fu ñu xalaat ne groupement femme fu ñu wooree ñu dem wuyi parce que massification mooy tax. di liggéey ak jigéen ñi mooy tax ëllëg ñu mën a am ndam bi yaakaar du ñu bàyyi daal fii ba euh, vingt 24 février 2019 incha allah dañuy continuer suñu massification. alors ñu ngi wax ñu ngi ci année sociale euh, tey tabaski gi euh, ñu gis ñu bëri génnuñu pour jàppale askan bi tey yéen ñi nga xam ne seen mooy dafa tuuti ngeen taxaw ci lan ngeen di wax ñi nga xam ne ñoo jàppale président ci biir dëkk man de defe naa ne gestes yi caw di def toujours à l'endroit des femmes. di jàppale jigéen ñi ndax bëgg démb rek laa jógee si talami mu doon jàppale groupement fay si talami yi ñoom it jox leen as tuutam pour jàppale leen ñu dem may yaakaar na ne leader yi nekk biir Thiès bu ko nekk defoon noonu kon defe naa ñun li ñu am li ñu bëgg dinañ ko am nañ jàppale jigéen ñi ndax jigéen ñi ak jeunes ñoo mën a gañaloo monsieur le président de la république bu leen jàppalee ndax jigéen boo jàppalee mu dugg ci këram bu duggee ci këram ay doomu ànd ak moom jëkkëram ànd ak moom kon nag nañ jàppale jigéen ñi jàppale jeunes yi leader yi nekk Thiès laa lancé appel boobu bu ñu ko defee bu dee dañoo bëgg président gagné bu ñu ko defee président dina am ndam fii biir Thiès